li nga xam ne moo war a am mooy justice commencé juboowaat ak sénégalais yi par atte loo xam ne lii moo moom la ñuy jàpp ne mooy yoon mooy Ouma Ousmane Sonko mën a bokk ci élection yi ñu jox ko fiche de parrainage mu bokk ci élection yi ni ñëpp di bokkee ci élection yi man miy wax ak yéen candidat la voilà collecté sama parenage mais dama gëm démocratie lii nga xam ne moom la ñuy def ma d'accord ci ak li ay avocat am wax du dara lu dul lu dul jéem koo éliminer ci ay élection loolu nag kenn mus koo gis ci Sénégal depuis très très très très très longtemps président Ablaye Wade bu daan bu daan opposé wu ak président Abdou Diouf am na luñ ci fekkee lu metti metti la woon opposition 2010 2011 ba ñuy opposé wu ak président Ablaye Wade lu metti la woon fekkee ngeen ko mais taxut vraiment ñu tere leen bokk ci élection yi ñëw taxul ñu tëj leen ci kaso bi taxul aussi ñu tëj seeni militant kon dellu ginnaaw bi nga xam ne gis nañu ko mais dafa jéggi dayo ñu war cee taxaw nag moo ñu war cee taxaw kon maa ngi am yaakaar ne tey fii xëy na ci tribunal de grande instance de de de Dakar réconciliation maanaam juboowaat ak justice bi dana tàmbale par décision bu jaar yoon dama ci profité nag yéeg seeti le juge xam Diallo mi nga xam ne mooy joxe autorisation de visite yi toog di ko xaar pandant deux heures de temps mu ñëw romb ma ci salle d'attente mi nuyu ma tëju ci cabinet bi sañatu la génn ancien garde des Sceaux lu ma wax bàyyi fi sa pièce d'identité moo tax ma bàyyil ko leet ne ko vraiment maa ngi regretté ne ko Sénégal amatul élégance républicaine ndax man maa doon quand même patron ma nekkee garde des sceaux su fekkee ne doo ma jox permis mais amal courage ne ma madame l'ancienne garde des sceaux kaay toog lii ak lii a tax mënuma laa jox permis de visite pour Ousmane Sonko donc encore une fois muy régression démocratique mu mosul a gis Ablaye Wade dañ ko daan tëj di permettre nit ñi di ko seeti tranquillement mais selon vous lan moo waral décision bi nu mel lan moo waral taxawaay bi nu mel waaw mais dafa bokk rek ci li nga xam ne moom la ñuy dund dellu ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu nekk ci wàllu démocratie lépp ci benn ëmb bi la voilà et puis violation droit voilà détenu bi la am na droit wu recevoir am nañu droit wu dem seeti ko donc franchement euh, dama ne woon damay damay sol sama daal man sama bopp dem toog ca salle ba may dem bàyyil naa ko bataaxal bind ko amul matuwaayu toog wax ma lu tax waroo joxe ay ay ay ay permis de visite pourquoi. voilà wala madame madame la euh, ministre situation boobu la nu fi la nu fi fekk. Uh-huh. Euh, mais li ci ëpp solo mooy décision bi ñuy xaar muy doon décision boo xam ne mooy réconcilier ni ma ko waxee jubalewaat sénégalais yi ak seen justice. parce que sénégalais yi nag vraiment mere nañ seen justice parce que lii nuy gis avocats yi jaar ci mais du dara lu dul bëgg a tere ab kandida mu bokk ci élection loolu mosut am depuis très très très longtemps Sénégal nag dañ koy bàkkee démocratie bu ñu demee ba ñu naan voilà opposant bi fi nekk tëj nañ ko kaso nangam nangam dans deux mois la ñuy dem élection am juge boo xam ne bii nañ ko fàttaliku dafa ne jox lañ ko ay fiches ñu dem direction générale des élections ne du ma def loolu déjà premier problème administration yow boo respecté wu loi kan mooy respecté loi ñu dem cour suprême cour suprême wàcce waat ko fii ñu wàcce waat wàcce waat ko fii tribunal kon tribunal ñu ngi xaar juge yi jël seen responsabilité responsabilité ku ciy ragal président Macky Sall dem na deseetu ko fi voilà lu bari donc lan la ñuy ragalati nañu nañu nañu gëm seen bopp voilà ragal yàlla aussi gëm li nga xam ne moom la ñu jàng muy droit ñu appliquer ko appliquer ko pour tout le monde bàyyi xale yi nga xam ne dañ leen a téye fa ma toog ci bureau juge ba xale yaa ngi fay ñëw di wut ay permis pour seeti seen ay morom yoo xam ne yi defuñu woon dara lu dul exercer seen droit constitutionnel constitution may na la nga manifester waxuñ la nga toj wala nga sàcc du ñooñoo fa nekk man mii di wax ak yéen sama responsable départemental bu Tamba ma nga ca kaso ba depuis six mais xale yooyu romb nañ ma di jël ay ay ay permis. waaw lu ah. ngeen message bu foor moom mooy réconciliation ñu war a jàpp ni ki divorce am na diggante justice ak peuple am ci jëm boppam. ah oui tey euh, maanaam euh, tey lan moom mooy jubluwaayu message boobu noonu. mais jubluwaayu message bi mooy pour kañ juge yi nga xam ne yor dossier bi tey ñu kañ ko. am na seen ay naataango yu jël seen matuwaay wala muy le juge Sabassi Faye même procureur général bi nga xam ne moo doon défendre état dafa ne woon nañu jox Ousmane Sonko ay fitam waaw kon kay wax ji jeex na ñoom kon nañu takk seen fit bu baax a baax def li nga xam ne moom la ñu war a def mooy wax li yoon wax mooy ñu jox ko bu yor ay parrainage moom Ousmane Sonko doon candidat ma doon candidat keneen doon candidat yéen sénégalais yi ngeen tànn loolu mooy démocratie Macky Sall buñ ko defalul woon loolu kon du doon président moom na fàttali ko dañ ko téye woon commissariat dañ ko téye woon commissariat ne dafa def blanchiment d'argent dañ ko mujj bay waaw bu ñu ko téye woon jàllale ko ci juge bi mandat de dépôt ko kon nu muy def kon du mës a doon président de la république kon li nga xam ne moom lay wax mooy damay woo tous les démocrates mag ndaw góor jigéen ñu taxaw parce que démocratie nag moo yor réew man ngaa yor wurus la faire ak jama voilà te du tax te du tax te du tax nga te du tax nga développé te du tax nga développé sa bopp li la taxam mooy tax ñu développé mooy li nu indi ba fii ñu doon ñun ñëpp ñu yem ci yoon bu bañ a am Kumba am ndey ak Kumba amut ndey. léegi lan mën a xaarandi ci opposition bi si toutefois juge bi euh, jël le contraire ñàkk euh, dogal yi nga xamante ne juge Sabassy Faye dogal na ko la ñuy xaar ci opposition bi. ah dinañ ci waxtaan jël ci matuwaay parce que ñun euh, front pour l' inclusivité et la transparence des élections dañu jàpp ne dañu war a xeex pour ñëpp bokk. Mhm. dinañ étudier nag les formes de lutte ensemble waaye moom taxaw moom dafa jot parce que bu nu taxawlee aussi euh, la ca kanam aussi euh, voilà. Euh, waaye doon lu neex. madame la ministre ñu ngi ci dernière ligne droite est-ce que seen taxawaayu xeex ngir inclusivité de l'élection de la participation des candidats à l'élection présidentielle est-ce que jàpp ngeen ni ki xeex bi tardewul wala maanaam waxtuwam lañ toll. waaw mais dinañu ci xeex ba dernier jour dernier moment voilà dinañ ci xeex ba dernier jour dernier moment dernière minute xeex nag loolu la voilà dinañ ci def suñu kemtalaayu kattan voilà di ci woo nag ni ma ko waxee ah suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu borom kër yi tout le parce que yëf yi Sénégal la ñuy taxawal taxawal luñ suñ bopp voilà mënuñoo xeex pendant ay année année ba démocratie yegg si fii wala ñu bëgg ko faagaagal delloo ñu ginnaaw ñu ñuy comparer ak dëkk yoo xam ne yii bon vraiment daawuñu seen sax ci wàllu démocratie di yàq deru Sénégal looloo fi nekk kon loolu dafa laaj taxawaay dafa laaj taxawaay yéen it ma sant leen yéen presse parce que yéen a ngi ciy liggéey aussi liggéey bu am solo